campagne booy di ca di ca xaru dane woon Sénégal bu ma ñëwee ñëppay tolloole ñëppay yem man ak yow ñoo yem ci justice bi képp daan ne justice bi nag dañ koy dañuy maanaam dañuy génne suñu loxo ma nga woon ca projet ba dañ ci génne suñu loxo justice demal boppam. waaw léegi loolu. non amul. mais naka lay naka lay amee Abdou loolu réforme moo koy def. c'est-à-dire il faut ñu xoolaat loi yi ñu fi voté woon ak kii ñoom mënuñoo xëy rek def ko. waa léegi est-ce que xam nga loolu. lu surga di saña di. sañ suur naa jomaay génne naa sama loxo ci suuf bi ñépp ko sañ loolu moom amul assemblée d'accord nga jomaay mu toog ne man man Bassirou waxoon sama loxo dama koy génne ci naa ci léegi ko waxee lan lan moo bu ne léegi yow fi mu ne mais magistrat yow yow moom xam naa nekkoon journaliste mais mais magistrat bi ngay wax ne mais magistrat si boppam magistrat si boppam ah conseil de la magistrature ñoom si boppam benn pàcc bi nanguwuñu président Macky Sall génn ci non mënu ma lim seen tur yi. Ah, non non attends Mohamed dégg nga Mohamed. Ah, euh, non non non attends xaaral ma xaaral xam nga ñoom. par exemple man li ma fekkee assise de la justice bi ba ñu demee si bureau harcèlement no la justice. de la justice yi ma fekkee man demoon fa fekke fa ba ma nekkee ci saal bi ci la ma dégg ci rapporteur bi wax ko mooy lenn li ci magistrat yi ànduñu ak li nga xamante ne mooy décision bi. Babacar monsieur Babacar professeur Babacar. Babacar ma. c'est la sant ou pas la tudd. Abdou amul benn. mais boo nee par exemple damaa bëgg dugg sa kër. benn ñenn ñi ni non garaawul. duggal ñii ni génnal. Ousseynou du dëgg kenn waxu ko. ah bon da nga boo ak magistrat nañ ci jomaay liggéey bi que mën nañ ko. benn magistrat bu taxawoon wax ko ma ne kii dàq leen ko. parce loolu wóor na pour suñu république. ak a wóor dañ mën a bàyyi waaye impôt domaine ñu dagg suñu suuf si di ko daggee nu mu leen neexee. di jël sunu fonds commun yi nu mu leen suñu toll na foofu nga yàgg. magistrat yu dëgër dëgër boo. xamante ni xanaa léegi magistrat yi xanaa après parce que suite bi mooy yenn loi ak yenn mbir yi mën nañ président. Euh, Bassirou Diomaye Faye ah, ah, ah non pas loi en fait mais mën nañ ci si yenn mbir nga xamante ni jàpp nañu lii di yoon waaw voilà. bu jalgatee loi Bassirou Diomaye Faye mi bu ñu ñëwoon États-Unis kay dàq nañ ko bu yàgg parce que. ah li mu fi def lépp. la fi def ay si jalgati signature mais tu comme si que day dafa def ay ah, scandale. en ah, fait comme yan signature nga signé ne nit ñi kaay leen vendredi jeudi nga ne bu leen ñëw ndax naa leen loolu li ko gën a garaaw dafa am États-Unis kenn ñi mu ko fa kenn xalaatu koo def. def na ko fi bu ñu ci ah, ab déedéet des na beneen. waaw benn nit. de mu fekk benn sénégalais tooñ ko. saaga ko attaqué ko jiñ ko criminel ñu jàpp ko yow ngay bind naan da koy soutenir te ñu nekk ñaari sénégalais. joxoo ku ne cëram dëgg kenn du ko dëgg ku ko xaaj naa féq nga dëgg ku ko xaaj naa féq nga dëgg ki ko moom rek lañ koy jox yooyu yëpp am na fi Ousseyn Sénégal mënuñu du ñu révoqué président mais kon heure bi kon dàggoo nañu ak Jomaay magistrat yi ngay wax billaahi maay wax magistrat yi Sénégal yi magistrat gënu leen a jub mm. te boo leen bàyyee woon magistrature bi accompagner leen génn ci loxo exécutif bi ba mu set wicc procureur Ndoye mii moom boppam. procureur moomul boppam instant déedéet moomul boppam dinaa ci ñëw moom boppam. Mhm. cest nga xam ne moom xamul ministre bi xamul député bi xamul kenn. moom daal yoon la xam jalgati nga ko day bind ne leen diw laa soxla. Mhm. président bi tamit ne ku maandu ba bu ñu soxlaa Cheikh Omar Diagne wala bu ñu soxlaa nu mu tuddati sax ka ca le ministre scandale de la république Cheikh Tidiane Dièye mu bind. ne ko laggal wuy ji procureur da laa soxla na mu gën a gaawee def autorisation xam ne boobaa sax autorisation bi la ñuy dindi moo xam ministre nga moo xam loo mën a doon bu la procureur soxlaa soxlawul sax président di def autorisation da ngay daal di wuy si ak loo jàppoon da nga koy bàyyi ñëw wuy si munta ne ah, munta ne jëru réforme jëru ko jëru ko jomaay rek mën na ko nan la koy xam na ko lan la waxoon bi mu ñëwee ñun ñun mën na ko mooy maanaam ko conseil supérieur bokkutuma ci hmm. dootuma ci CG dogalal leen seen bopp mais loolu laa jël dem assemblée wala bi mu nee cëpp bëggoon na ko bi mu nee cëpp si automatiquement mu jël loi boobu yóbbul ko assemblée automatiquement ñu xam ne kii bëgg na ko waaye lu mu toog da wax dugguma génnuma kooku waxatul sax ay réforme de. day def bi mu ne dafay génn après gars dañ na ko toogal. parce que ñoom dañ doon bañ. wax ma koo ci xam euh, seen association bi bi ëmb magistrat yi nu mu tudd. magistrat daa bari association daa bari de. UMS daa bari de dañoo yaatu de waxuma ci kenn rek. ah mais ñoom wax nañ ko di. mi ñooñu lañ xam ñoom parce que ñoom dañu jàpp ne dañu jàpp ne bu président génnee biir conseil supérieur à la magistrature mën nañu jàpp ne magistrat yi seen biir mën nañu xeexante mën nañu def loo xamante naka su noonu léegi dañu jàpp ne moom dafa war a toog en tant que arbitre. déedéet ñoom ñu ñoom ànd nañ ci mu génn. xam nga affaire bi comme kan comme ñan xaar xam nga parce que fan nañu manipuler dañ ne woon dañuy jël yenn yenn yenn nit ci société civile bi c'est-à-dire yenn sàmba boo yi dugal leen ci magistrat yi. ab raaxaloo leen quoi. <laughs> parce que ñii nga gis ñoo ay société bi ay sàmba booy lañ. comme kan comme ñan. du may tudd kenn waaye xaaj bi ay dóorkatu marto lañ ay tekkatu xel. justice bi ne nag loolu du fi amee mukk jomaay nag moom man na fee toog waaye ñii duñ dugg c'est-à-dire jomaay lañ mënalul dara xam nga loolu wax yi mënaluma la dara la c'est-à-dire que ma ne ah Ousseyn mën naa toog mais booy Ahmed jubut mënu fee toog c'est-à-dire Ousseyn ak Ahmed bugguma ñu toog mooy ñoom dañ ne bu mënta ñàkk maanaam bu mënee ñàkk na fi ña na fi ñëpp jugee ba ñoo suñu secteur ñu réglé ko mais bu mënee ñàkk bu fekkee nag mënta ñàkk jomaay mu mënuluñ ko dara ndax mooy buur di bumbi waaye sàmba boo yi dugg. ah mais léegi nag loolu lañ jël ba ko manipuler naan naan justice bi nee nañ. jomaay du génn mais xam nga ne. magistrat yi nu muy opposé mais parce ñoom duñ ci opposé xam nga tax boo xoolee document bi ko signé sax mooy Ousmane euh, Chimère Diouf moom mooy président UMS parce que genre bi ni wu wuñu pour président ba si Faye. Euh, non duñ ci opposé xam nga ñooñu. Mhm. du ñu du ñu fukkati Massi Sara du fukkati. du siif comme ni enseignants yi def jox leen ma lii sinon non ñoom duñ def loolu dañoo civilisé nag nañu waxante dëgg koo ci gis sax la dal civilisé parce que xam-xam bi la. dañ naan ñun lii lañ bëgg secteur bi mel ko suñu sañoon lii ak lii mooy am. yow nga toog yow xoolal yow nga toog naan du ma ne wii du ma ne non. te yow jomaay bi ngay campagne bi nga nekkee ci opposition bi yéen yéen moom ak ay moromam ñoo doon tëwëri naan doole bi doole bi nga xam ne chef d'état da ko am da ko war a wàññi ñun bu ñu ñëwee justice bi day indépendant su ma juumul sax demoon nañ ba ne ministre de la justice sax dinañ xool nuñ ko mën a génne wala ñu supprimer ko wala ñu écarter ko wala boog ñu dagg cordon bi nekk diggante ma procureur mais man loolu dama ci àndoona ah. jomaay bi ko falee une semaine après def naa benn télé de la place bu ñuy wax fii maa ngi nuyu Bamba dem naa fa même propos yi laa wax man a jomaay li mu waxoon nag bi mu nekkee ci opposition bi bis bu ko defee man pare naa pour jàppale ko ñu bari doon wax naan non booy bi dafa cuub drapeau am nii parce que man dama doon xaar mu def ko gis justice bi man Sénégal. est-ce weesu na ngeer we non bànneexu ba pare nag. nu <laughs> mu si na ci arrêté na ci na ci ay noonam ba pare de. comme kan fi mu ne nii nu mu ko fa amul njariñ Jéegi Diop. Hmm. Laat Diop Ahmed Suzanne Camara. commissaire Kayta Ba Jaxate Jéegi da jàppoon kenn waru ko téye. non kenn waru ko téye. lu tax dinaa ci ñëw xaaral ba ma génn ci sap fi ma nekk pare. Hmm. tey dama bëgg ñu def ko tempo tempo. non non moo tax ma ne temps bi nag di baal tempo tempo. léegi bàyyi naa ko sa ah, kàddu. <laughs> non man maa la laaj continuer. man maa la laaj gerte comme xale quoi. mais léegi li ma la bëgg a laaj. ay allez continuer léegi nag moo tax ñun ñun ñëpp ñuy sàkku ñun ñëpp ñuy man nee naa jomaay bu génnee loxoom ci justice bi waa Pastef yëpp ci kaso bi lañ jëm Hmm. parce que lii ñu fi def nag ñoom lii ñu nekk di def nii ci ci di tooñ ak di di ñu naan ay 5 milliards ak yooyu mais bu doon justice du indépendant heure bii ña ngi ca kaso ba ñoom ñëpp ba mbir mi leer mais procureur est-ce que leen a woo est-ce que leen a woo leen a woo est-ce que bu mais Cheikh Dieng bi ñu woo barki. mais ah. euh, ci coalition président